ndax bi ngay waaj ko yaakaar naa da nga xëy jóge signature bi rek sa waajuru góor wàññeeku ak fi mu la tolloon ni mu meloon ci yow. waaw wàccaay bi métti na méttiwul dañuy jël delloo ko suñu borom rek te xam ne suñu borom moom moo xool lu ko neex mu def ko loolu la nam ñoo ngi ñaanal sama waajuru góor yàlla xaare ko àjjana ab bépp waajur bu jiitu rek ab bépp doomu aadama bu jiitu suñu borom defal la yërmande ak jéggal ci barke Seydina waaw métti woon na mais nag dañuy jël lépp si laa la te xam ne jàmm mayul boppam yàlla moom mooy dogal loolu la namm ñu sante ko yàlla naqarlu xam ak ak mbégte tamit waaw ndax tamit koo xamante ni moo la yar defal la li nga lépp loo xamante ni tey ku la gis naaw la nga jékki-jékki gisatoo ko dina am naqar mais tamit da nga koy sante yàlla te xam ne sunu borom moom moo ñu bind moo njëkk bind bind dund bind dee bind dund kon loolu mënut a ñàkk ñu santee ko yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax nga jël bi Quench làmb ji nga Alioune Sèye sax lim kaawo dafa bari trop trop trop ci làmb yaa cinq kawo borom kawo yi daal la gaa yi di woowee. <laughs> du ma borom kawo yi tombe la rek tombe moo waral ay gaaf rek waaw xam nga rek nga pare ñu ji nuyu suñuy coach ku ci mel ne na Sall Zilba nga xam ne moo yor box bi wax dëgg yàlla moom moom xam nga li naan xam nga loo loo loo loo loo loo jàngul doo ko tari nga tax na noonu la demee rek gars yi dañuy wax ni mais lépp liggéey la rek lépp liggéey la. secret waa liggéey rek. liggéey rek boo amee combat boo amul combat nekk ci rek loolu kese la boo xoolee combat bi mu taxawee tey su fekkoon ne liggéeyu wala nekkuma ci dara kon kon combat bi waaw boo xoolee deux mois presque ay deux mois tuuti la dañ koo jël teg si tuuti koor gi ñëw tey amaana tey bu fekkoon ne nekkuñu si kon combat bi du taxaw ba tax nag xam nga secret bi yëpp liggéey la rek waaw liggéey la waaw ginnaaw daan nga Quench bari na ay yoo xam ni ñu ngi la koy proposé ñu ci mel ni Franc ñu ci mel ni Bombardier ñu ci mel ni Eumeu Sène ba ci li yàggul dara dara dara ama Sène sax gis nañ nga dëkk ko ci dëkk bi nga ko dëkk keroog fële ca fi nga xam ne moom moo di mbuur dëkk bi waa dëkk bi c'est normal la loolu yëpp làmb la rek xam nga ñu war a mayante xaalis xam nga làmb boole ñu tamit ndax man wax dëgg yàlla amatuma leen lu may prouver ci làmb waaw gaa yi bu dee combat ëpp ñu ma ko bu dee victoire ëpp ñu ma ko te am na ñoo xam ne gars yi ñu ngi leen di takkal rajo di leen aj ajal li ma bëri ci combat maa ëpp combat ëpp leen victoire ba tax na xam nga maa def samay preuve tey bi may jël kiwen si nii booy bari bëri nanguñ ko woon jël am na ñeneen ñu ngi ko doon doxal mais dañoo wax mooy loolu noonu man nangu jël ko ci ay ay risque rek ndax ku ne xam ne ni ku ne wax kiwen si xaw wax champion la ndaanaan la gaa yi booy yu bëri ñëwewuñ ko ma jël ko ak façon bi ma ko daanee kon dafa jot gars yi may ma chance ma bëre ak ñoom loolu kese la loolu tam ma dëkk ko te su ma bëree moom damaa war a bëre moom su ma bëree moom damaa war a bëre moom Sénégal ay tàmmal la tànnal la trois adversaires ku ci mel ni Eumeu Sène bi ma lim sànq ku ci mel ni Franc ku ci mel ni Bombardier gis nañ nga dëkk ki nga xam ne moom moo mais sa diggante ak Franc daa mel ni moom la Sénégal yi gën a bëgg. waaw majeure partie yi ci dundu làmb yëpp koo wax ñu ne Franc Franc Franc Franc mais làmb la rek du ma taxaw mukk di ko dëkk wala ma kii ndax deful ci làmb lu ma deful maa ko ëpp victoire maa ëpp combat mais làmb moom bu ñu waree boole dinañu boole ci kàttanu yàlla Baye Fall ragalul ragalul amul kenn ah njaago la de waaye bàyyi ak njaago ak loolu du si dara loolu yëpp. appétit na de <laughs> daaw na de. ñooñu maa leen gën a rakkaaju téeméeri junni yoon. moom ñuy def nii yëpp ay ceeñ la rek. léegi naa Balla Gaye nag wax ne moom ak Alioune Seye après muy génn ay business di def ay ay yëf. Ah, yooyu muy wax yëpp jaru ko. yooyu xam nga yooyu waxi waxi ragal la ak waxi tàppet la rek. <laughs> nga da laa ragal. wala non waxuma daf maa ragal mais am na nay wax yoo xam ne waxi tàppet la ndax tey déggul ma la léegi nee la deful ci làmb lu ma deful bu dee làmb maa ko ci jiitu bu dee ay combat maa ko ëpp bu dee victoire maa ko ëpp mais bu demee. Balla Gaye maa ngi koy nuyu au passage di ko ñaanal suñu borom waaw wax lii xam nga wax làmb la ku ne am nga droit ñu laaj la nga ne diw ak diw làmb la mais moom warul génnaat demel ni comme si que daf maa wala nangam nangam man su ko bañ moom mënu ma bañ waaw mais su demee bay wax ay wax naan ay Alioune Sèye nii naana loolu waxi tàppet la rek loolu waxi yëfi ragal la. kon jàpp ne Franc daf la jàpp ma ne daf ma ragal ndax moom gaynde la ku jàkkaarloo Bombardier bëre yeneen champion du ma wax la ma ragal ndax su ma waxee ne Franc dafa ragal day dama bëgg bëre moom wala dama koy dama koy kii man du def loolu lu ma bëggul ko ma ko def du ma ko defaatee. Mhm. kon dañoo war a bëre mhm. bu ñu waree bëre dañuy bëre. Mhm. mais yenn wax yi jaru ko. waa yenn wax yi jaru ko. waa jaru ko jaru ko jaru ko. waaw na na respecté nit ñi respecté nit ki mën ngaa bëgg mën ngaa bëgg bëri moom yar ak teggin wane jëf def yëfu làmb ba yàlla boo ngeen bëri après bu jeexee jàmm ju kon ni mm. mais bëgg bëri nit wala nga kii di wax yenn wax yi jaru ko quoi jaru ko. tey kay bu seet si woon tey tey tey pare nga pour bëri ak. waaw lii loolu pare naa pour ñëpp ku dul France sax pare naa pour moom. Mm-hmm. Sénégal dafa tànnal trois adversaires trois adversaires yooyu Alioune Seye moom ci xolam kan moo ko ci gënal Eumeu Sène Bombardier Franc kan moo ko ci gënal. non wax dëgg yàlla sama objectif sama objectif wallaay la azim Eumeu la du sax franc waa hmm? seega xam nga wallaay la azim sama Eumeu Sène non Eumeu ndaanaan la def lu ne lu ne kii xam nga sa palmarees boo ci boole Eumeu loolu palmarès du ko gën a riis ndaanaan la daan fi ndaanaan ne nekk champion waaw mën a bëre xale yi mën a bëre ndaw ñi waaw di daan xale yi di daan mag ñi tamit xam nga kooku ndaanaan la kooku boo bëree moom sa sa carrière loolu ak cant la waaw moo tax ma bëgg a moom te xam naa ne su moom combat bu neex lay ne waaw di nga fa gis bëri di nga fa gis xeex. Mhm. wallaahi la azim waxuma la ko pour bëgg a wax nii rek. Mhm. dafa mel ni tamit da nga amaale lu lañ naan gaynde mer la fanaanoo comme ni mu bëgg bëgg def saa kees barki Dembo Ndiaye loolu bokk na ci nga gën ko bëgg a jël. waa loolu yëpp mu ngi ci loolu mu ngi ci ndax tey jii nii mënu bokk ak saa kees ci géejawaay ko feek Balla Gaye géejawaay xam mu ñëw daal leen te du am loo ne xam ne nekk na sama xol loolu mu ngi ci mais tamit man maa bëgg a moom ah, ma ma personne maa bëgg a bëri waa waaw muy bëri xam naa dafa mën bëri pire ndaanaan la champion la man maa bëgg a bëri ak moom Eumeu Sène wallaay la azim du danger si man bak sëñ Fallou du danger si man xeetu bëri yi Eumeu Sène yor bëri yi non naa ko moom boo laajoon tey jii nii moom wallaay la azim dina la Alioune Sèye la te moom bu tëddee dina xam ne Alioune Sèye mën na maa daan waxuma lay waxi caaxaan leer laa la wax nit nag buy wax lu muy gëm day mel ni ku naagu te naagu gëm sa bopp ak a ñoo mhm. damaa gëm sama bopp wala te wallaay la ku dul ëmma seen mën naa koo daan xam nga qualité bëreem ak xajam gi ne ci moom waaye lépp lu ne ci ëmma seen na ci man hmm? wallaay la azim lépp dàq bëre du ma ne moom a dàq du ma du ma ne du ma dàq bëre mais man xam naa ne xam naa ne xel li nekk ci moom rek ne na ci man te moom boo ko demoon laaj dina ne rek kii dina copier ci boppam ci man waaw waaw wallaay lazim gars yi dàq ñu ma poobi de makan barke Serigne Fallou Mbacke gars yi dàq ñu ma poobi coolee fi nekk ak ajal ak am am bàjjan ñàkk bàjjan doo nga fi ne da ngaa sedd calme bi affaire de man damaa mës a gis ma dugg damaa mës a gis ma dugg xam nga loolu la gars yi war a bàyyi mosumaa dugg ci géew mosumaa dugg ci géew ba ba wane yëf ñàkk fayda wala kii damay ñëw wane ngor ak jàmbaar yàlla dogal li muy dogal su ma ñëwee damay tuus mu neex am na ci mbër yu mag yi bii bi bëri maa leen dàq tuus foofu waaw mi ngi doon te damay ñëw damay bëri damay ñëw damay xeex damay bëri mais quand bu ñu génnee làmb nii nii nii en tant que personne damay wax mooy joxe respect joxe cër mais tey nga gis fi ku fi simb ba sonn ñëw fii si géej gi fa def loolu li tax leneen loolu amul solo ay ay ay mbër daa war a mbër daa dëgg la loolu ci làmb la bokk mais li ëpp solo ëpp solo mooy fu laay géew te loolu yàlla may na ko Sénégalais yi doon la xaar sa combat Quench nga ñu indi mobilisation bu doy waar ñëpp ne Alioune Seye dafa mel ni que li nga mobilisé sa diggante Quench si lan la. waaw non mobilisation bi jóg rek ànd ak waa Géejawaay ànd ak waa Medina Gounass yëpp wax dëgg yàlla nit jóge fu ne xam nga ak fu dul Géejawaay sax gaa yi jóge nañ fu ne xam nga Alioune moom wax dëgg yàlla nitu làmb yëpp koy supporté. su ma amee biis wax dëgg yàlla nit fu ne lay jóge loolu nag dañ koy sante yàlla bu baax baax di wax ne bis bi moo tolloon noonu rek bis bi moo tolloon noonu waaw mais dañ koy sante yàlla daal muy amaat tiis boo xam te ni tey su ma la dalalee ba fii te du ma la ko laaj dinañ ne ma xanaa sax kii lu ko dal muy tiis boo xam te ni dafa dal ci ikiri waalo dal ci axlu làmb buñ ko waxee muy Lac de Guiers sa frère sa mag sa xarit tiis bi dal ko mu metti lool dégg nag jooy nga fi ne Alioune warul jooy Diaz warul jooy coow li bari trop ci biñ ko yëgee ak defeere bi nan la la def waaw non tiis bi yëpp mooy li may wax rek dee moo gën a metti te dañ koy muñ kon dañ koy sant yàlla rek di ko ñaanal suñu borom génne ko foofu noonu ndax wax dëgg yàlla foofu du place am mais nag dañ koy ñaanal suñu borom mi nga xamante ni moo koy tege te ku ko teggi mu teggee ko yàlla na ko teggil bu gaaw a gaaw a gaaw ci barki Seydina Mohamed mhm. waaw. jooy yi Alioune Seye warul jooy nga dégg da nga jooy jooy metti lan moo waraloon jooy. waaw mais am na si loo xamante ni tamit xam nga nit ko ne nit nga rek waa nit moom bu amee lu la naqari noo def nga am tuur xewal loolu kese la woon mais nag dañ koy sante yàlla rek am leen leen lum ñu kii mais dañ koy sante yàlla kooku suma nit la suma xarit la suma cheikh la lépp loo xam ne dal na ci kawam sa fa mel ni sama kaw la dal ci affaire visa la yooyu bett na la loolu yëpp xam nga loolu loolu yëpp ay ay ay détails la rek loolu yëpp ay la mais du ma ci xuus mais en tout cas yàlla teg na ko nattu ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne mooy teggi mu teggil ko bu gaaw a gaaw a gaaw ci barki Seydina Mohamed waaw ndax nit moom anam xam ne moom bu fa tollee moom ñaanal ko rek moom moo war ko ay ay lii laak laala laal fu gaa yi toll ci xaalis bi dajalee kañoog beeg ñi ñi nañ dajale kenn ku nekk jàppalee ko ko fu gaa yi na gaa yi na gaa yi na gaa yi na gaa yi na gaa yi jàpp ci bu baax a baax a baax waa géej waaye ku dul géej waaye képp koo xam ne yaa ngi ci axlu làmb di nooya làmb war nga ñëw soutenir la de guerre numéro 2 ndax loolu moom moo jekk moom moo jaadu ndax bu fekkee ne dañ ne ñoo bokk loo xam ne mënuñu ko séddoo saa su ne daa war a rafet lu wokk kenn rek war naa wokk keneen ki waaw ba tax na laaj na taxaw laaj na jàppale kon na gars yi ñëw jàppale ko taxawu ko rek waa saa su geesoo gis ak lu làmb ñu xam ne ko ñu li ñuy woote ñu la demee. Sadio Mané mi ñu joxe na 10 millions sa fere. waaw loolu yëpp ay détails la rek loolu moom du ma si xuus. waa ndax xam ma rek waaw yaa ma gën a xam daa am lu ñu war a wax am lu ñu war a mais daal li am solo ba am solo mooy ñu ñaana ko suñu borom génne ko fee mu nekk fi nga tëjee kàddu gu mujj doon xoj naa la tey la ci benn point bi may ak yow mooy écrit waalo écrit waalo ba ba bari coow fi mu toll nii ndax yaakaar naa mbër mi muy phénomène yi yenn xale yi saa bu ñu bëree génn daanu bu ñu génnee ŋàññi écrit waalo écrit bi dañoo war a def nii écrit dañoo war a def ba ci du ma damay cité tour ba ci mbaytin mi nga xam ne moom moo mujjee jógee foofu bërki démb ñàkk am nu mu waxee ci écrit bi lan mooy écrit waalo lan la daan mel ni coow li xaw na fa bari non coow li bëriwu fa de xam nga yenn naan réeroo amul ñàkk waxtaan am ba tax na tamit loolu dama ciy ñaaxaat sama bopp di ci ñaaxaat boo yëpp rek ak képp koo xam ne ku nekkul su ikiri sax mm-hmm. di la wax ne nit boo amatee boo fekkee danga nekk ay nit seq ak ñoom jàmm seq ak ñoom teraanga ñuy sonn ci yow ngay sonn ci ñoom mm-hmm. bu fekkee daa am loolu naqari ci ñoom da leen di gis bu fekkee sañ nga ko nga waxtaane ñoom ci njëkk ak teraanga ne lii moo metti mais du ay téléphone du ay du ay ay ay média moo koy faj wala nangam nangam mm-hmm. ndax suñu la dékkee micro rek mën ngaa wax lu toj réew te boobaa après di nga ñi nga ñi nga waxoon ñi nga waxoon ñi nga waxoon musiba yi mën nañ la jéggal mën na bañ a jéggal wala bu ñu la jéggale tamit après seen nekkin sa nekkin dootul dootul dootul neex ba tax na loolu maa leen ko éviter loo mooy képp ku nekk ci équipe bi ku néew ci équipe bi yëpp dafa balaa pour ñëpp nga at na amul solo tey nit ki mënoo leen nekk ay at muy ngeen séq teraanga tey benn jours mu ñëw mu am mu demee waroo taxaw naan ay eh, lii ak laa loolu de lu muy yàq mopp lu muy defar amul leen lu muy defar. mais mu bari waalo nag lan mooy problème bi ñàkk règlement la wala lan la. non du question ñàkk règlement sax ñun moom règlement la mais yërmande moo bëri rek ndax dañuy jàpp ne ñun ñëpp ñoo bokk gunaas yi écrit waalo ñu fi ñu fi nekk ñëpp gunaas gi cour cour bi lañ ne koo ci dox 200 mètres da ngay dem beneen kër gi mhm. kon xam nga jaru ay règlement yu metti yooyu dañuy jàpp ne ku ci nekk rek sa kër nga nekk ba tax na xam nga yërmande googu moo fi am mhm. Aaron Sall fii la dëkk mhm. ñoom ñaabu ndaw boo tourné kër ñëw Aaron Sall man sama kër ngi nii kër caab waaloo ngi nii ah kër papa booy jinee ngi nii tout pere boo xoolee ku fi dëkk moom mooy Alioune Seye junior te kooku dafa mel ni sax moom fi la dëkk ndax du toog journée boo xam ne ñëwoo fi kon xam ma dafa dafa war rafet daal wax yi ñaaw yëpp jaru ko waaw wax yi ñaaw yëpp jaru ko ana lan ngay tàggoo kàddu gu mujj waaw kàddu gu mujj gi santaat sëñ Fallou rek waaw Fallou wax dëgg yàlla maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ñaan bitig bii nii suñu borom def ci tawféex teg ci loxo bu baax a baax a baax dëgg yàlla jantal booy la ndax ndaw moom bu xam nga boo amee lu mu bëgg rek doo def lu dul ñaanal ko kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax loolu rek laay tàggatoo di la sant bu baax a baax di la gërëm di gërëm njool waaw njool waaw maa ngi koy sant bu baax a baax a baax waaw di sant waa Gunaas yëpp waaw di félicité ñaamu ndaw mi nga xam ne moom lañ tuddee place bi waaw wax dëgg yàlla ñu ngi ci am contentement a baax a baax a baax a baax di ñaanal sëñ Fallou yàlla teg ko loxo gën ko kàttana ba lépp loo xamante ni song na ko rek suñu borom defal ko ci tawfeex ak taysiir jërë ngeen jëf mbokk yi yaakaar naa ne comme ni ma koy waxee sama dootal émission bi may ubbi képp koo xam te nii nag yaa ngi dëkk fi nga xam ne moom moo di Gonaas wala nga dëkk ci entourage bi ñetti mbaar Baxdaat ñëpp ñu ngi leen di woo ci place bi muy benn yéere neen ko jàppale ndax xale la ndaw la buy liggéey ku ci am sa ñaar dërëm wala sa ñeenti dërëm dajale ko nga ñëw jënd ko yéere bu rafet li muy jaay nag qualité la boo xoolee bagage yi turki lay jógee bagage yi qualité lay jaay te qualité ak quantité. jaayul benn fëgg jaay nag lu leer laa la wax. Ah? <laughs> jaayul fëgg jaay qualité lay jaay. qualité lay waaw te qualité quantité nag duñu benn. dañoo xaw a nuru waaye duñu benn dëgg neexul. qualité quantité duñu ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf.